mu ne ñaari gan yi ñaari yu bees yi te mooy guddeeg bëccëg ne suñu méngooxee benn gan walla benn bu bees mooy doom aadama ne ñu ngi koy ommat jëmee ko ci rab képp koo xam ne guddeeg bëccëg ñoo lay ayawante guddi bëccëg guddi bëccëg ne ñoom ñaar ñooñu ñu ngi lay omat jëmee la ci rab demam yàgg ngay lax yàgg di télé bam yàgg nga dellu ardalul umur dellu xaat xaleel nga xam ne dootoo xamati sax ci li nga ne doo xamati sax ci li ngay def léegoo-léeg nga lekk ba suur ne lekkuma dara waaw léegoo-léeg ngay jooy xiif yow mii démb yow yaay def loolu tey loolu moom lañuy ñuy tuddee arsalul umur waaye sunu borom ci mbaaxam ak ci lewetam dund bi li muy gàtt gàtt defal nañu ci ay seasons ay waxtu yoo xam ne daf koy tànnal boppam sellal ko pour bëgg nit ñi di ci defaree seen bopp defar di ci defaree seen bakken loolu weeru koor ci la bokk nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala daf ko fi def pour ñuy mën ji defaree suñu bopp euh, xalal te mooy ay tolof tolof yi nga xam ne xew na ci suñu dund ñu man ko cee defaraat euh, ba nga xam ne balaa ñu ko génn dañuy bokk ci euh, fi yàlla yi xam ngeen ne weeru koor day wàññi dooley bànneexu bakkan bànneexu bakkan dafa am doole joo xam ne su la songee noo mën a def mu daane la ndare nga xam ne dafa jiitu woon ci sa ruux gi doole joo xam ne dana mën a dékku dooley bànneexu bakkan waaye bu dul loolu rek dana la daane am na nit ñoo xam ne bànneexu bàkkan mënul leen a muuf waaw nga xam ne duñ gis tara luy xëcc seen bëti bay yóbbu seen xel bi suñ gisee lu yàlla bañ rek aha waaw wëññi nañ seen bopp ba pare muslu ci yàlla auzu billahi laa ilaha illa ñooñu ñooy ñi nga xam ne leer dugg na ci seen xol yi leer dugg na ci seen ruux ñooñu seytaane mënut leen not notee noonu lu gaaw waaw ñu ngi góorgóorlu naka noonu suñu déggee lu yàlla bañ ñu fatamtu te duñu dox jëm ca te duñ ko laal te duñ ko xeeñtu ñooñu not nañu seen bànneexu bakkan te nit yàlla daf ko bind mu am freedom am libati yàlla ci boppam moo freedom aadama waaw even even ci bëgg-bëggam moom yàlla dafa freedom aadama yàlla bi bindee doomu aadama yi dafa am purpose bu tax mu bind leen te moom moo ko wax wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa li yabudun maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimoon li tax ma bind nit ak jinne mooy ñu jaamu ma ah te nit ak bi jinne yooyu ñoom la dëxalante woon ca àllaaxira ca ca ca azal wala boog nañ ko waxee ca aalamul arwaax ca aalamul aalamu dar mooy ba nga xamee ne ruux rekk a am doomu aadama jëmmam amagul nekkagul alamul ashbah jëmm yooyu wala ruux yooyu ñoo diggante woon ak yàlla ne suñ leen indee ci kaw suuf dana ñu nangul yàlla nguuram gi lum leen wax danañ ko def lum leen tere ju bàyyi ko bi ñu ñëwee ñu wor bi ñu ñëwee ku ci yàlla ñenn ñi sax dañoo far nangu luñ yàlla ne moom mooy aji bind ji waaw nangu luñ ko nguuram gi waaw su ko defee kon loolu loolu wor wor raw ko waaw ah waaye yàlla ci ci lewetam gi eh, terewut forcé wut kenn foreen eh, firi na firi na doomu aadama yi ne su la neexee nga gëmma su la neexee nga ba su la neexee nga jaamu ma su la neexee bul ma jaamu laa ikraa fi diini qad tabayyana rushdu min al ghayy fa man yakfur bi taaguti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati lwutqa lu baax a ngoog lu bon a ngoog sa xel maa ngoog xam na lu baax xam na lu bon free wi la ngoog sañ nga ci sa bopp dara bu la neexee def bu la neexee bàyyil waaw li yow defal lu la neex ma def man itam ma def lu ma lu ma neex yàlla li ko neex yow li la neex mooy la mooy mooy yàlla yàlla liko ko neex mooy lan moy kuma wor lo def ma fay lako ko yàlla moom yàlla du retaliate di def nangam ji nga def ni moo tax ma maanaam nga def nangam eh, tax mu def lu ëpp déedéet la ngeen waxante woon rek mooy su ma lu baax su ma jëfee lu baax nga fay ma lu baax su ma lu bon nga fay ma lu nga fay ma lu bon loolu ngeen waxante woon da ngeen dëlante nga ne ko la nangul sa yàlla lépp loo ma wax ma def ko loo ma bàyyi loo ma bàyyi te it su ma lay jaamu duma la booleek dara yow rekk yaay moom jaamu gi yàlla moom it dig la ne kon moom itam dana la teral bis boo ko fekkee mu teral la waaw du la mbugal mukk te fekk la nga waxoon def nga ko ah su boobaa nag kon yàlla eh, jàng nañ wala boog war nañoo jàngee ci moom jikko jooju mu nekk jikko ju rëy kon doomu aadama ci dundam bu gàtt bi suñu borom subhanahu wa taala ci mbaaxam utal na ko ay bunt yoo xam ne fa lay defaroo weeru koor mu ngi bokk ci bunt yooyu su neexoon yàlla du ko def yàlla bëgg gim bëgg jaamam yi bañ gim leen bañ a mbugal yërëm gim leen yërëm moo tax ut na ay waxtoo ki ay palaas yoo xam ne dañ fay defaroo te loolu bés bu ne am na saa yu euh, xaaj bu mujj ci guddi gi saa yu desee yàlla ne na dana wàcc ci asamaanu benneel naka la yàlla rekk a ko xam naan ana kuy tuub ma jéggal ko ana kuy euh, ku may ñaan ma may ko loolu bés bu nekk la waaye yàlla yemu ca tuub ci boppam lu jëf garaaw garaaw garaaw bés boo réccoo jéggal na la ko yàlla jël ci ay bés yi ci bés yi mu tànn ci benn muy àjjuma muy sang bés mu di ci mu di ci ful jëf jël weer weeru koor tànn ko jël màkka tànn ko jël madina tànn ko jël baytil maqadis tànn ko jël jàkka yi foo manti dem ci àddina bi tànn leen ah, jël waxtu yi bu ilimaan éeg bu ilimaan éegee ca min barba di xutba ah, bu boo balaa booy waaja a julli bu julli jeexee waxtu yoo xam ne yépp yàlla daf leen tànn te yàlla defewu ko dara lu dut emergency eh, exit gate la la bugg a ubbil doomu aadama yi nga xam ne ay fàttekat lañ ay tooñkat lañ ay juumkat lañ pour saa yu sa xel dajee rek nga jaar ci bunt yooyu raxas sa bopp yàlla jéggal la ah mu jël nag weeru koor wax dëgg yàlla fonkal ko boppam ba tax na li ñu séntu mooy comme que weer yi fukk la ak mu tànn ci benn rekk yàlla xéewal la nga fekkee ko mu xañ ko sa nawle yu bare te sa mbaax taxul te ñoom euh, sa mbaax taxul ñoom mbon seen mbon taxul kon dang ci wara góor góorlu ba li ci yàlla dëxëñ ci ay njariñ nga mën koo jëriñoo ba tax na guddi weeru koor banexu bakkan day néew doole waaw wala bok du guddi gi sax manam wéru koor dal banexu bakkan day néew doole ndax la ko doon dundal mom banexu bakkan moy seytaan lek ak nan moo koy dundal ak banexu pëy ñom ñep ñu teunk leen waaw ñu ngi leen teunké ci baña lek baña nan a commencé di néew doole kon yu bare ci moy yalla dang koy tayala def léegi doto ko mëna té def xana leen da nga bañ a or waaye di momen or nga niñ bëggee nga ooree fiñ toll ni yow damm nga diggi seytaane tayalloo nga seytaane néewloo nga ko doole ba dootul mën a tee def dara in fak sax ñu ne dañ la tegal sax ne la seytaane moomu sax niñ ko def mooy bu weeru koor duggee tënk nañ ko sax moom sax am existatul maanaam existatul mënatul laa defloo dara loo def rek sa bànneexu bakkan moo la ko defloo loolu nag ay xéewal la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala moo ñu ko defal waaw moo tax lenn ci nit ñi